wa sharra al-umuuri muhdasaatuhaa wa kulla muhdasatin bid'a wa kulla bid'atin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar. asalaamu aleykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatu. mbokk yi fi teew yëpp maa ngi leen di nuyu. sant suñu borom tabaaraka wa ta'aalaa may gim nu may nu teewaat fii ren gannaaw boo xamee ne teewoon nañ fi daaw ak at yi ko jiitu mu may nu nu fekkewaat ko tal ko ba teewaat bu amee sun yenn mbokk yoo xam ne daa nañ ko teeweeg noonu te teewewuñ ko bu fekkee dañoo jiitu yàlla na leen yàlla jéggal te yaram leen bu fekkee ay gàllankoor la yàlla na ko yàlla teg bunt bi ñu war a bokk fàttalante tey mooy min sifaatil mu'minin fil kitaabi wa sunna lenn ci melokaan yi ku gëm yàlla ci ni mu dëkkee ci alquran ak ni mu dëkkee ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax melokaani ku gëm yàlla ab jullit bari na ba du neex a ci benn jotaay moo tax ñu ne lenn ci ay melokaanam ci alquran ak sunna gannaaw ku gëm yàlla la wax nag dana laaj ñu xam ngëm mooy lan ngëm ci waxinu arab mooy dëggal a tasdiq même sax ci waxin wudul arab ci sunu waxin yi ñuy waxe fii di wolof wala weneen làkk itam ngëm lam cay tekki ci waxin mooy ngëm mooy dëggal bokk na ca waxi suñu borom tabaraka wa taala ji muy wax ca bokki yuusufa yee ba ñuy wax ak seen baay li ko wax ne yuusufa day til la ko lekk ne ko wama anta bi mu'minin lana xam nañ ne sax nag doo dëggal li ñuy wax waaye nag ngëm ci sharia ci lislaam as-salafu di ci lislaam saxaaba yeeg ña ca topp dox seenu doxin xamle nañu ngëm xamle goo xam ne gu mat sëkk la ñu ne ngëm dëggal lay doon gu nekk ci xol saxal lay doon nangu lay doon ciw làmmiñ waaye jëfe lay doon ci ay cër ñu ne googu dana dolliku ci topp yàlla waaye dana wàññiku itam nag ci mooy yàlla loolu ijmaa la muy ak dëppoo la ci asalafu saalih waaye bokk na ci xam la yi gën a rafet te gën a yoo xam ne xam la nañ ci ngëm xamle gi ko abu zaydin alxayrawaani xamle ci risaala risaalaam boobu nga xam ne téere fiq la waaye nag mën ko ubbee ab muxaddima boo xam ne ci pas-pas lay wax ndax fiq jëf la te jëf bu mën a wér te fekk pas-pas wérut moo tax mu jiital ab tënk ci pas-pas bi nga xam ne mooy pas-pasu ahlu sunna wal jamaa mooy aqidatu salaf da caa wa anna al imaana xawlun bil wa ixlaasun bil qalbi wa amalun bil jawaarix wax la ci làmmiñ waaye sellal la ci xol gis nga waxul fas ci xol waaye sellal ci xol la wax ndax mas nañ mën nañ koo fas ci xol fasaale ca leneen te boobaa ngëm nga waaye su fekkee moom rek lañu fas nag ci xol bi te mooy ixlaas bil qalbi jëfe ko itam ca cër ya ne yazidu bi ziyadati al amal wa yanqusu bi naqsiha dana dolli ko moom ngëm ci dolli ko jëf yu baax yi lu jëf yu baax yi gën a dolli ko ngëm gën a dëgër gën yokk waaye dana wàññiku itam ci wàññiku jëf yu baax yi lu jëf yu baax yi gën a wàññiku wala sax ñuy jëf ay moy ngëm yàlla gi itam di gën di wàññiku ne fa yakunu fiha naqsu wa biha siyaada nee na ci jëf yu baax yooyu ci la ngëm gi yokkoo waaye ci lay wàññi koy sax mu ne nag wala yakmulu xawlul iman illa bil nee na waxi ngëm yàlla di wax naan gëm naa yàlla du mat lu dul nga jëf li nga xam ne moom la ngëm yàlla laaj wax nga ko ci saw làmmiñ yaa ngi koy jëfe ci say cër te nag la nga fas ca xol ba ak la nga wax ca làmmiñ wa ak la ngay jëfe ca cër ya dëppoo naag sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam li yonente bi nekkoon moom saxaaba ndax suñ borom moo ne ko fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw nit ñi suñu gëmee lu mel ne li nga gëm yaag say saxaaba ku ñëw seen gannaaw gëm ngëm gu mel noonu dëppoog yéen kooku moo gindiku kooku moo am ngëm gu wér moo tax borom risaala yokku ca muwaafaqatu sunna bokk na ci nusoos yi ñu tegtaloo nag xam le googu ñu xam le ngëm ci ne rek pas-pasu kese bu ci doy fokk mu ànd ak jëf waxi suñu borom ji muy wax ne wa ma kaana allahu li yudiia imaanakum inna allaha binnaasi la raufu rahim imaan bi foofu julli la ndax mooy bi ñu wëlbatee xibla jublootun baytul maqdis di jublu ci kaaba ji lenn ci naafiq dañ doon wax ne waaw kon ñi daan julli ba faatu di jublu baytul maqdis fekke wuñu bi ñuy wëlbati kaaba gi xanaa ñooñu kon seen julli ya sànq na suñu borom ne wa maa kaana allahu li yudia imaanakum suñu borom do sànq seen ngëm ga seen jaamu yàlla yooyee julli gañ doon def borom bi ngëm la ko tudde ndax moo leen taxoon bi julli kon loolu tegtal la ci ne jëf yi ñuy jëf ci ngëm la bokk borom bi dana wax ne innamal mu'minuuna alladina ida sukira allahu wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana wa ala rabbihim yatawakkaluun alladina yuqimuuna alsalaa wa mimma razaqnaahum yunfiquun ulaika humul mu'minuuna xaqa su borom bi muy melal ñi gëm dafa wax ne mooy ñi nga xam ne bu ñu tuddee yàlla ñu tiit seen xol tiit ci gën góor góorgóorlu ci lu baax waaye sori itam lu ñu leen tere waaye di tiit dem nag ndax sax lu baax li def nangu nañ ko nit bu ñu jàngee alquran seen ngëm dolli ci seen borom la ñuy wakkiilu mu teg ca ne allazina yuqimuuna salaam kon taxawal julli googu jëf la te suñu borom mi ko dugal ci ngëm wa mimma razaqnaahum yunfiquun ñuy dundulee di dépenser ci li ma leen war sëgal borom bi ne ulaayka humul mu'minuuna haqqa ñooñu ñoo gëm yàlla dëgg nga gis ne loolu itam ay jëf la bu dee sunna yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu wax ne al imaanu bid'un wa sittuuna su'ba la ci beneen riwaaya wa sab'uuna su'ba fa afdaluha la ilaha illa allah wa adnaaha imaatatul adaa ani tariq axrajahu lbuxaari yonente bi alayhi salaatu wasalaam ne ngëm mat na juróom benn fukki xaaj ak lu topp wala juróom ñaar fukki xaaj mu ne ba ca gën nag gën caa kawe mooy laa ilaha illallah ba ca gën a suufe mooy randale luy lore ciw yoon loolu nga xam ne jëf ju xeebu la ko ñu bari jàppee te fekk na ab xaaj la ci ngëm yàlla moo xam aw xeer la walla xottu butéel la wala ak weñ la wala am pax moo xam ne nit mën na caa daanu nga yëwénal loolu loolu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na ci ngëm la bokk ak wax gi nga xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko benn délégation bu ñëwoon ci moom leen di tuddee wafdu Abdul Qays daf leen ne hal tadruna mal imaanu billah ndax xam ngeen luy gëm yàlla ñu ne ko allahu wa rasuluhu a'lam yàlla ak yonentam ñoo ko xam mu ne shahadatu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu salaa wa itaau zaka wa sawmu ramadan wa an tuaddu xumusan minal maxnan mu leen ngëm yàlla daal mooy ngeen seede ne yàlla rek mooy buur bi yeeyoo jaamu seede ne Muhammad sallallahu alayhi wa alihi mooy ndaw li mu yónni di taxawal julli kon jëf dugg na wa itaau zaka jëf la moom itam wa sawmu ramadan ak nag ngeen di joxe ab juróomeel juróomeelu xaaj ci lépp loo xam ne lu ngeen màng la jële ko ci xaret bokk na ci itam xadiisu Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu mu ne dama dégg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yaqra'u fil maghribi bi tuur wa dalika awalu ma waqara al imaanu fi qalbi rawahu al buxaari Jubayr ibn Mut'im nee na timis dama dégg yonente bi sallallahu alayhi wa di ko julli di jàng suuratu tuur wa tuur wa kitaabin mastuur nee booba la ngëm yàlla njëkk a sax ci sama biir xol kon loolu it dalil la ci nekkoon ngëm yàlla luy sax ci xol la kon loolu mooy xam le ngëm pas-pas la buy nekk ci xol te sell fa moom rek mu ne fa ñu tudd ko ci làmmiñ waaye itam jëfe ko ci cër te mu dëppoog sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ku am lu mel noonu ci nga am ngëm ba bokk ci al mu'minuun ñii ñuy bëgg a waxtaane seeni melo te ci biir melo yi danga gis ne lu ci bari melokaanu jëf lay doon waaye bayta itam ñu xam am solo ngëm ak wàccuwaayam ci diine la ci jiitu mooy ngëm mooy sart ci suñu boroom nangu benn jëf bu mën a doon jëf ji lu mu rafet rafet rafet bu defee nag ku def lu baax rek am lu baax ni ñu koy faral di waxee ci wolof ku def lu baax am lu baax de waaye des na beneen sart ku def lu baax te fekk nga gëm yàlla te yàlla rek tax nga def ko ci ngay doog a am moom payug yàlla suñu borom ne man amila saalihan loolu mooy ku def lu baax min dakarin aw unsa moo xam góor la wala jigéen waaye wa huwa muminun loolu mooy sàrt bi te fekk mu gëm ci lay doog a tudd nag la muy am fala nuxyiyannahu xayaatan tayiba wala najziyannahum ajrahum bi axsani ma kaanu yamalu léegi ku jëf lu baax lu baax nag du lu aada baaxal wala lu xeli nit ñi baaxal ndax lu aada baaxal am na jeneen aada ju ko ñaawal lu am xel rafet lu baaxal ko am na xel mu ko ñaawal kon loolu duñ ko mën a tudde lu baax ndax lu baax mooy loo xam ne kenn mënta dindi ak mbaaxam mën nga caa bañ a d'accord nag waaye téewul moom rek mooy lu baax boo kon lu baax mooy lu suñu borom tabaraka wa taala ne looloo baax ci alquran walla ab yonentam xam le mbaaxoog loola ci sunnaam foofu rek la ñuy dellu ci baaxal dara al amalu saalih ay tënkam mooy na nekk mashruu na nekk lu ñu yoonal lu ñu digle na doon lu ñu la digal ñaareel ba nga defe ko ni ko ki ñu yónni doon defe mu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñetteel ba ne sell yàlla rek tax nga def ko ñett yooyu bu dajee ci la jëf ji doo ko tudd jëf ju baax kon su fekkee lu ñu fent la amul fenn fu ñu ko yoonal yow yaa ko rafetlu rek wala mbooloo ànd ne nangam baax na di ko def te amul delluwaay ci alxuraan ak sunna kooku ñàkk na sart bi njëkk ci jëf ju baax mu ne ku jëf jëf ju baax moo xam góor la wala jigéen te fekk mu gëm loolu mooy sart bi danaa ko dundal dund bu teey te danaa leen fay seenu pay ca la gën a rafet ca lañ doon jëf suñu borom dellu wax ne wa man yaamal min alsalihati wa huwa muminun fala yaxaafu dulman wala hadma koo xam ne mi ngi jëf-jëf yu baax te fekk mu gëm bu mu ragal ak tooñ ci ñu tuumaal ko jëf ju ñaaw ju mu defut bu mu ragal loolu waaye bu mu ragal itam ñu sànq ay àqam bañ koo fay jëf ju rafet ju mu def leen bu mu tiit jëf ju baax moom fa suñu boroom tabaaraka wa taala dara du ca réer inna allaha la yudiicu ajra man ahsana amala yàlla du sànq fayu koo xam ne rafetal na jëf ci borom jàlla wax ne wa man araada al axirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kaana sa'yuhum mashkura nee na koo xam ne namm nga àllaaxira bëgg nga fa am la fa suñu borom tabaraka wa taala ci ay xéewal bëgg a mucc ca lañu ñu fay ragal te nga jëf nag jëf jëy maye loola wa saa laha sa'yaha mu'min te fekk nag ngëm am nee na ñoo ñee seen jëf lu yàlla sant la lu mu gërëm la lu muy fay la ñaareel ba ci am solo ngëm ak tolluwaayam ci islaam mooy ñàkk ngëm gu wér te buñ ko waxee ngëm bu ànd ak bokkaale kooku moom jàppeetuñ ko ngëm fa suñu borom loola bu boobaa jënd jëf duutu wér jëf ju jëf jum fekkoon mu wérit jëf jooju day niil day sippiku suñ borom ne wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil axirati min al xasirin ku weddi ngëm weddi na yow gëmatoo yàlla nangu woo wéetal yàlla yàlla cëram yi mu jagoo nga di ko ko boole keneen kon ba tey weddi nga ndax li yàlla ne moom rek ko moom nga ne moomu ko moom rek kooku it weddi yàlla la nee na loolu ku ko def ay jëfam yi mu jëfoon yëpp benn jëf sax mënatu ko def ci kanam waaye yim jotoon a def sax day yàqu faqad xamita amalo jëfam yëpp sëppiku na bu ëllëgee ci ñu perte ñi lay bokk suñu borom tabaraka wa taala tudd melokaanu aw nit te mooy naafeq yi ne ulaayika lam yuminu ne ñooñu daal seen ngëm wérut gëmuñu sax looloo tax kon fa axbata allahu amalahum wa kaana dalika ala allahi yasira ñàkk giñ ñàkk am ngëm gu wér gu mag benn gëmuñu wala buñ gëmee dañ caa boole leneen muy bokkaale te bokkaale moom fa mu fekk jëf ak jëf ja lu mu rëy rëy lépp day yàqu ndax jëf moom rëyaay bi mi ngi yam ci jëfi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yonent yi ñoo gën a mat ci jaami yàlla yi ñoo gën a mat itam ci nangul suñu borom tabaraka wa taala jëf moo gën a mat te borom bi tabaraka wa taala bi ñu leen tuddee ba noppi daf ne walaw ashraku la habita anhum ma kaanu ya'malun li ñuy baax lépp day bis bu ñu bokkaale woon mboolem lu ñu defoon dana nii ñëw ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam nag mi nga xam ne moo ci gën a tedd gën cee màgg ne ko wala qad uuxiya ilayka wa ila alladina min qablik la in asrakta la yaxbatanna amaluk wala takunanna min alxasirin wax yu naa la ni ma wax yo woon ñi la fi jiitu ci ay yonent ne boo bokkale woon sa jëf yépp li muy màgg màgg li muy rëy rëy ak li ngay màgg màgg yow ci sa bopp teewul weesu woo bokkaale mën a yàq say jëf kon bokkaale kenn weesul mu yàq say jëf te mooy ngëm gu ñàkka a ngëm nag dafa am ay ponk ponk bu ñu ko waxee mooy la gën dëgër ca mbir ma mooy kenu gi ci jàngale boroom xam-xam yi dañ koy jàngale ci juróom-benni xaaj te it ñu ko sukkandikoo ci alquran ak sunna yonente bi alayhi salaatu muy gëm yàlla gëm malaayika yi gëm téere yi yi mu wàcce ci ay yonent gëm yonent yi mu yónni gëm al yawmul aaxir muy bis bu mujj bi muy dajale jaam ñépp rek la leen fay leen seeni jëf waaye gëm itam nag ab dogal moo xam bu yiw ba la wala ba nga xam ne aw ay la ci jaam bi waaye lépp ñu xam ne yàlla moo ko dogal tegtal ba mooy tontu bi yonente bi alayhi salaatu woon jibril alayhi salaam ba mu yore melaw doomu aadama dikk di ko laaj laaj boo xam ne jàngale la ci jublu woon ba mu ko laajee lan mooy ngëm daf ne ko al imaanu an tumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmi al wa tumina bil qadari xayrihi wa charrih rawaahu muslim mu ne ko ngëm daal soo ko bëggee matal nga xam ne sa ngëm mat na da ngay gëm yàlla gëmi malaikaam gëm téere yi mu wàcce gëm yonent yi mu yabal gëm bis bu mujj ba gëm ab bu ci benn manqué rek ngëm duutu fa nekk ngëm itam dafa am ay yu mu yoo xam ne mooy tax ngëm nga mën a wér mooy waxtu wi nit kiy gëm na doon waxtu woo xam ne dees na ci nangu ngëm dafa am waxtu yoo xam ne ku bëgg a gëmit ngëm dafa wees ngëm day wees te mooy njëkk feeñu màndarga yi yowmal yu mag yi mooy yowmal xiyaam balaa ñëw am na ay màndarga yu koy wane yu gën ak yoo xam ne euh, yeneen ya ñoo ñu tudde ko as suxra wal kubra màndarga yu ndaw yi moom mi ngi feeñ ba mu dalee feeñ waaye yu mag yee mag nag nga xam ne moom bu ñëwee rek yowmal xiyaam dal na yegg si adduna daal lay jeex yooya nit ki war naa gëm balaa yooya tàmbalee feeñ su yooya xasee tàmbalee feeñ ngëm duutu mën téewér te bokk na ca fenkuk jant bi ci soow jant bi fenke sow moom la borom bi wax ne yawma yati baadu ayaati rabbik laa yanfau nafsan imaanuha yawma yati baadu ayaati rabbik bis ba nga xam ne lenn ci kéemtaani suñu borom yu mag yooyu di tegtale tukkiteel adduna tàmbali naa feeñ nee na keroog bu boobaa ngëm duutu jariñ borom ku gëmit duut la jariñ laa yanfau nafsan imaanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaaniha xayra ngëm goo xam ne fekkul woon mu gëm ko wala gëmoon na ko waaye jëful woon ca ngëm ga dara te kon li muy tekki mooy ngëm ga matul woon nee na kon bu boobaa duutu jëriñ dara ñaareel ba itam nit ki war naa gëm balaa toll ci li ñuy tudde xar-xaratul mawt muy xar-xar lay ndee nit kuy bëgg a faatu xam ne dee moom dikk na hatta isaa xadara ahaduhumul mawt dee dikk na ba teew ndax nit ki mën naa feebar waaye dee dikkagut waaye nag am na fu muy toll nag procédure faatu gi moom tàmbale na déclenché na waaw li ko dal ni coono yi day gën di yokk rek ba ba muy faatu waaye duut dellu gannaaw ci loolu moom su xasee tàmbali foofa ngëm mënatu faa wér wala boobu ku ne ci àtte boobu nga xam ne sax nekkul di yëg métit woowu waaye nag mi ngi ci àtte kuy bëgg a faatu ndax ku ñuy bëgg a rey la wala daal nekk na ci moment boo xam ne di bëgg a lab wala am lu dërmal ci kawam loo xam ne xam ne ne lii moom amul benn pexe bu mu ci yaakaar pour mu ci ci dee ak dee la ci moom kooku itam bu boobaa foofa ngëm mënatu fa wet te loolu mooy li daloon na Firawna ba muy topp Moussa alayhi salaam ba ca biir ndox ma dem ba yàgg mu gis ne yoon wi mu doon jaar ci kanamam lépp soppi ko ndox léegi delluwaat na nekkum ndox dem ndox la woon waaye yàlla moo ko xaraloon Moussa mu nekk yoon Moussa jaar ci bi Moussa jàllee Firawna moom itam jaar ci bi Moussa jàllee ku nitam ba noppi nag suñu borom delloowaat géej ne mu meloon mu nekkaatum ndox firaaw na xool ci kanamam lépp dim ndox mu xool lim jot a weesu ci gannaawam it lépp delluwaat dim ndox te nag mi ngi ci diggi géej gi kon nag xam ne ne kon dee dikk na moom la borom bi ne wa jaawasnaa bi bani israil al bahra fa atbaahum firawnu wa junuuduhu bagyan wa adwa hatta ida adrakahu al qaraq qaala amantu waaw lee ne ba leen firawna toppee moom mbooloom te ak mbewte ak tooñ rek moo tax mu toppale defuñu ko dara ñoom ba mu di leen dabi waaye nag ba mu demee ba gis ne lab ñëw na ndax gannaaw mënatoo jàll ci sa kanam ba man dem ca tefes ga gi ci sa kanam mënatoo dellu it ci tefes gi nga jóge woon ndax sa gannaaw it ndox la kon xam ne ne lab dikk na foofee nag kon mi ngi ci àtteeb kuy bëgg a faatu moog àtteeb kuy sukuraat fi mu ne ñooyam doonte sukuraatagul mu ne amantu annahu laa ilaha illa alladi amana bihi banu israil wa min al muslimin ne gëm ki nga xam ne kenn du buur kudul moom te ki nga xam ne moom la waa banu israil a la laa ilaha illa alladi amana bihi banu israil kenn du buur kudul ki banu israil a yàlla fàttale na ko sa aw turam mënatu ko tudd illa allah yàlla illa alladi laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israil kenn du buur ku dul kii waa banu israil a gëm daal ne kon nag wa ana minal muslimin man ci jullit ñi laa bokk suñ boroom ne ko al aada xanaa tey xanaa léegi nga ci bokk wa qad asayta xablu wa kunta minal mufsidin lu jiitu lii da nga doon mooy yàlla tey itam ci yàqkat yi nga bokkoon gis nga kon kooku loolu mu doon wax lu dëggule ci moom ndax xam ne ne alkande ñëw na waaye da koo def ci waxtu woo xam ne nag jëriñatul dafa paase ngëm ga dafa paase kon ngëm itam bokk na ci liy tax mu wér nga def ko ci waxtu woo xam ne wu ñuy nangu ngëm ngëm itam bokk na ci li tax mu wér nag al kufru bi weddi leneen loo xam ne lu wuuteeg li ngay bëgg a gëm la waaye doo gëm say cosaan say xiram say xàmb say tuur yooyu yëpp bàyyiwoo ca dara ba noppi nag da ngay gëm yàlla da ngay wax laa ilaha illallah ci jullit ñi nga bokk léegi déedéet borom bi da ngay wiide li fi nekkoon lépp fa man yakfuru bit taaxuut yakfuru da nga koy weddi waaw yooyu moom da nga ciy nekk kaafir moom ci yooyu yëpp da nga ciy nekk kaafir fa man yakfuru bit taaxuut wa yu'min billah nag doog a ñëw kooku day faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisaama laha wallahu samiun alim waaye boobu nag fii ñu ci noonu loolu mooy suñu problème maanaam bàyyi yi nga xam ne wuute na ak lislaam da nga fekkoon ci say cosaan say maam ñu koy donnante ba mu ci yow nga jàpp ne ne war ngaa mën a ne ci lislaam ba noppi boole koog moom ndax loolu dañ ko yàgg a def te fekk na nag loola du wér ngëm du mën a wér te ànd ak loolu ndax booba baatu laa ilaha illallah bi ngay wax dëggu fi yow ndax boo ne woon laa ilaha bu dëggu woon kon yooyu yëpp tuur yeeg xàmbu yeeg béjjën yeeg yëpp da nga leen di di gannaaw ñu ngi fi ba léegi nag kon saxal nga leen ne ilaah lañu ilaah lañu kon sa laa ilaha wérut laa ilaha ji nga wax wérut ndax boo ne woon laa ilaha mu wér yooyu yëpp dutuñu fa taxawati ndax ñoom ña nga fa ba léegi ndax wax gi ci làmmiñ te ba noppi gëm ci sa xol yii dañuy jariñ yii mën nañoo jariñ ku leen bàyyi it man ngaa loru yaa ngi gëm loolu ci sa xol ba noppi itam yaa ngi jëfe ci say cër la yoo yàllaaj yaa ngi koy def bu dee ay tuur yu leen di rayal la yaa ngi koy def bu dee lu ñuy takk la yaa ngi koy takk bu dee lu ñuy naan la yaa ngi koy naan ba noppi ne amuñu déedéet am nañu koy ñegi fi loola bu boobaa kon ngëm du mën a wér tax borom bi kon ne la jiitu mooy ak kufru bi taaxuut dafa mel ne tool rek fokk da nga koy ruuj ñax maag gàncax yaag yëpp nga dindi ko doog a ji loolu booy tax am gàncax bu baax. tool foo faut nga dindi la fa nekkoon doog faa andi nag gàncax ga te gàncax ga boo ko jiyee da ngay continuer di bay di dindi ñax ma ba gàncax rek nekk gàncax rek moo fa war a ne ngir nga mën caa am li nga bëgg. naka noonu itam sam xol tool la boo xam ne moom it ngëm yàlla nga ci ji bala nga ko faa ji na nga ko ruuj ba mu set te boo ko fa jiyee na nga koy bay. ba bu ca ñax genn sax mu ñaxu bokkale yàlla bu mu sax ci sa xol bu ca saxee rek sa gàncaxu ngëm yàlla googu du màgg ndax ñoom ñaar mënuñu faa bokk màgg suñ borom jàlla wax ne wala qad baasna fi kulli ummatin rasula an yabudu llaha wajtanibu taagut xeet naa ci ñoom ab yonent yonent ba lu muy jàngale jaamu leen yàlla muy wéetal leen yàlla wajtani bu te ngeen sori te ngeen wattani ko sori lool bu leen ko jege fenn ak taaxut taaxut nag mooy lépp lu ñuy jaamu rek di ko jox cër li waroon a yaakaar ci yàlla ñu koy yaakaar ci moom wala li ñu waroon a ragal ci yàlla ñu koy ragal ci moom lool ak lu mu mën a doon rek taaxut fa minhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi dalala fasiru fil ard fanzuru kayfa kaana aqibatul mukaththibin mu ne am na ci nag ñu yàlla defal tawfiix ñu ko nangu tawxiid boobu waaye am na ci nag ñu yàlla maandu ci ñoom ñu sànk mooy nag soo doxee ci kaw suuf wala nga jàng histoire xel yi jiitu woon da gis ñi doon weddi yàlla fan mujj kon loolu am ubbee la woon ci xamle ngëm xamle itam ak am solo moom ngëm xamle itam lan mooy tax ngëm wér ci def ko ci waxtu woo xam ne dana wala ban ngëm googu waaye itam ngëm goo xam ne nag day ànd ak weddi leneen bañ a gëm leneen lu wuute ak ngëm googu ñu doog a egsi nag ci melokaani ku gëm nag loolu nag kenn ku nekk ci doon war nga cee bàyyi xel bu baax melokaan yooyu ba yow mi ngi ci yowam melo bu ñu wax rek yaa gën a xam sa bopp waxal ak sa xol xool ba xam yow mi ngi ci yowam nit doonte nit ñaan la koy jiiñ ne noonu nga mel yow yaa gën a xam sa bopp yow ni nga mel wal tansur sun maa qaddamat li xatin nafsun kenn ku ne moo koy xoolal boppam ndax kat ëllëg yaay layal sa bopp yawma taati kullu nafsin tujaadilu an nafsiha yawmal xiyaam bakkan bu nekk mooy ñëw di laayil boppam kon nag war naa la boppam balaa egg si fa muy laayee su borom tabaaraka wa taala ci alquran xam ngeen ne am na saar wu tuddee almuminuun suura almuminuun ñi gëm ñi gëm ca tàmbali ba mu ne xad aflaha almuminuun ñi gëm day texe nañu te ñoom rek kay texe tam nag texe nañu texe mooy mucc nañu ci li ñu doon ragal jot nañu ci li ñu doon bëgg fa man soxsiya anin loolu lañ doon ragal wa udxilal loolu lañ doon bëgg faqad faas kooku texe na ku ñu soril safara nga mucc ci safara dugal la aljanna kon texe nga mucc nga ci li nga doon ragal jot nga ci li nga doon bëgg loolu mooy alfaws wal falaax mu ne loolu nag ñi koy am mooy al muminuun mooy ñi kon nag ku ne war ngaa nekk candidat kon bokk ci al muminuun mu dal leen di tuddal ay melo ne alladina hum fi salatihim xaasiuun mooy ñi nga xam ne ci seenub julli bu ñuy julli day ànd ak xusuwa day ànd ak yëg yàlla maanaam seen xol day connecté day connecté wu ci sunu borom tabaraka wa taala ni ngay connecté sa ordinateur wala sa leneen ba nga xam ne dugg nga ci réseau bi di man di gis lu sore loo xam ne nekkul fi yow noonu nga connecté connecté itam ci almalakut daanaka sa jëmma fi ne rek waaye dara nekkatu déggatu ndax sa dégg tere nañ la ngay déglu leneen sa tànk waratu la dox saw làmmiñ waratu la wax lu dul tudd yàlla muy alxuraan ji ngay jàll ak tasbihaat yi ngay def ci biir julli sa cër yëpp euh, téye nga ko teg nga ko ci al alamul xaarij yi muy monde extérieur bi la wër léegi yow bokkatoo ci julli ko mel noonu nag mooy ko soox amaa da nga allahu akbar rek waaye yaa ngay déglu bay am ñuy wax lu ñuy wax ca sawet yaa ngi koy déglu yaa ngi xalaat même xol bi dafa war a coupé ci ay xalaat kooku kon bu boobaa addu la usoo kooku sahu la way ñam tëkku ne fa waylun lil musallin allazina hum an salatihim saahuun xaasi'oon bu amul rek saahuun mooy am ndax ti ki mën naa connecté waaye bu am réseau du dugg ci réseau bi waaye ki ne allahu akbar ne na connecté na kon ndax nee na yàlla rek a fi ne ba dégagé na lépp mais xol bi demul branché wut waaye nee na ñi nga xam ne nag suñu ko xasee def seen xol seen i seen lépp mi ngi suñu borom tabaraka wa taala ñooñu day nee na ñooy ñi gëm yàlla goo xam ne digg leen ak taxe muy benn molokaan kon muy alxusuu fi salaa kooku na ci nit ki natt boppam ba xam moom lu muy jullee waaw kooku kenn ku ne dañ ci war a jéem a góorgóorlu boo gisee julli fi nga kabbare ba ba seen sëlmal làmmiñ wi du noppalu benn yoon ndax làmmiñ ak xol ñooy communiquer dañuy bëgg nag loolu làmmiñ wi wax xol bi pour nga mën ko occuper ndax xol bi moom mënta toog ci vide boo ko téyewu rek mu dem ci leneen waaye dañuy bëgg muy occuper wu ci li làmmiñ wi wax bu ne allahu akbar na ima na xol bi xalaat allahu akbar mboo bu fekkee yaa jàng ngay teewlu aaye di xam li borom bi wax xam ne yàlla ngay waxanteel ndax nee nga yàlla iyaaka ba dafa mel dafa toog ngay wax ak moom iyaaka yow yàlla ne woo iyaahu de moom yow nga ko wax yow iyaaka naabu da ngay waxante xanaa sa morom li sa doon boo doon waxanteeg moom war ngaa bàyyi si yëpp jàkkaarloog moom def ci moom wax ji waaye di wax nit di xool fële di toppatoo leneen kon day wax ne yow faale woo ma ci xañaas bi ma am ak yow faale woo ko comme ne nee nga yàlla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yàlla ngay waxal ihdina moom ngay waxal ba tey di ko ñaan ihdina as-siraatal mustaqim yooyu da ci war a bàyyi xel bu baax loolu boo ko def xool bi bu nekkee di xalaat loolu du dem fen ba ca noppee jàll ca saaroo moom it nga di ko xalaat su fekkee ilimaanay jàng ngay dégg itam ngay xalaat di settantal loolu ilimaan di jàng moo tax ñuy bëgg toujours foo déggewul njàngum ilimaan yow nga jàng waaw benn ngay jàng ba ngay déglu bu ilimaan dee moom déglul ilimaan comme yaa ngi dégg li muy jàng bu fekkee daa egg ci rakka yoo xam ne doo déggati li muy jàng day yaru yow nga jàng waaye bëgguñu nga toog ci widd benn yoon boo rukkoo yaa ngay wax subhaana rabbiyal asiim boo siggee sami allahu liman hamida boo sujootee noonu ba ba ngay taay ba ba ngay wax asalaamaaleykum la ñu du arrêté benn yoon loolu mooy dimbali xol bi nag ci mu mën a wu moom itam ci loolu ngay wax loolu mooy mën a maye xusoo waaye su fekkee day baat yow miin yoo xam ne nga tàmm di ko wax rek waaye dootoo bàyyi xel ci maanaam mi muy wax loola kon boobaa itam wax gi du tax nga am xusoo mu teg ca walladina hum anil lagwi muridun ñaareelu melo ñi nga xam ne nee na lépp loo xam ne laxwu la mooy neen la baatil la amul njariñ ak luñ ko mën a tudde mën naa doon wax nag mën naa doon jëf nee na ñoom dañ koy dumóoyu duñ ca bokk laxwu bu dee la ñuy dégg wax na ne wa ida samiu lagwa aradu anhu bu ñu déggee laxu muy wax joo xam ne baatil la wax joo xam ne kii day wax lu ko neex rek wala lu neex nit ñi muy waxal wala lu mu mën a amee dara wala lu ñu ko mën a fonke yooyu rek lay wax waaye li ñuy wax teguwul fenn loo gàtt gàtt am njàng sax da nga xam ne lii moom xel na ko du ko wutal wenn lay wu wér lu muy bëgg a yëkkati ay nit wala yëkkati boppam wala lu mu am wala lu neex ay nit loolu laxul borom bi nee na boo ko déglu boo ko déggee bu ko déglu du mooyul nga wa isa sami'u laghwa a'radu anhu bu dee lu ñuy jëf la mu ne wa isa marru bil laghwi marru kirama bu dee lu ñuy jëf la nga romb ko nee na rombal jàll bul seetaan bul laajte kon ñaar yooyu rek fi ne benn muy lu ñuy wax wala mu lu ñuy jëf wala ñu boole wax ak jëf waaw bul déglu bul seetaan wa isa marru bil laghwi bu ñu rombee ay caaxaan ki i neen doonte turu diine lañ ko tudde waaye leer na la lii moom du diine parce que lu mu doon diine rek war ngaa imaginer waaw lii bu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ndax dana mën a bokk ci lii waaw mépp ndaje moo xam ne dañuy wax ne diinal rek imaginer na ndax bu yonente bi sallallahu alayhi ndax dana mën a waxuma sax bokk ca waaye bu ñëwee moo ko war a jiite moo ko war a jiite te bu fekkee dana ca mën a bokk kon boo déggeem jàngaleem lu mel noonu daana ca bokk kon kon boo jàngee ni mu daan jàngalee danga ca gis kon lu mel ne ñooñu loolu ñuy def kon loolu ca la bokk ba lam doon def lañ continuer ba bu ñëwoon loola moo koy jiita daf koy continuer waaye bu fekkee ne loola nag luñ ko tuddee tudde diine loolu xamal ne ko laxu la rombal jàll wallazina hum ani laxwi mu'ridun ñetteelu melo ba mu ne wallazina hum li zakaati faa'ilun ñi nga xam ne borom xam-xam yi ñaari prix lañ ko jox ñii dañ ne ñii génne seen asakay alal di ko génne ci seen teeyu bakkan di ko def waaye ñaareel ba itam ñu ne ñi nga xam ne dañuy sellal seen bakkan zakat boobu ñaar la sellal alal ji waaye sellal bakkan bi ndax sellal alal ji liñ ci jublu ji ngay génne alal ji di ko joxe sellal bakkan bi la ci jublu xus min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tusakkihim gis nga tusakkihim tusakkihim jëlal ci seen alal yi sarax muy asaka yoo xam ne daleen leen di da di setal ci ak bëgge bëgg gi nekkoon seen biir xol yi waaye itam day setal seeni xol da koy laabal ci ak bëgg àdduna bëgg alal te loolu day gàllankoor ngëm yàlla kon boo dee génne alal ji dana tax alal ji sell laab waaye dana tax itam sa xol bi nga xam ne moo ko joxee itam moom itam sell laab kooku ñetteelu melokaan la ci melokaan yi ku gëm yàlla ñeenteel ba mu ne walladina hum li furujihim xaafizuun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum gayru malumin ñi nga xam ne dañuy sàmm seen bopp moo xam góor la wala jigéen te bu dee ay góor la du ñu séq ak ku seen soxna wala boog koo xam ne ku ñu moom la ca ba loola di am bu dee jigéen la itam du seq ak ku dul borom këram loolu ci melokaan yi ngëm yàlla la bokk maanaam sàmm sa bokk téye sa bopp beneen jigéen bu mu mën a doon te du sa soxna fa la ca lislaam yamloo ca wàllu xool ba ca wàllu jaxasoo ba ca wàllu wéet ga yooyu yëpp nga bañ ca dugg bu dee jigéen tam moom itam góor goo xam ne du boroom këram nekkul maxaramam moom itam fa ko ca lislaam yamloo ca na mu war a muure aw yaramam ci kanamam na war a bañ a wéete ak moom na mu war a bañ di wax ak moom yenn wax yoo xam ne mën na ca wane ak wayef ci boppam loola itam mu wattandiku ko loolu melokaanu ku gëm yàlla la gëm yàlla day aar boppam ci diggante li war a dox diggante góor ak jigéen juróomeelu melokaan ba ci melokaan yi ñu nga xam ne ñoo gëm yàlla te suñu borom de dañuy taxe mu ne walladina hum li amaanaatihim wa ahdihim yeneen ñi nga xam ne nag dañuy sàmm seen amaana amaana nag bu ñu ko waxee moom mooy li gën a rëy dugal na lépp dugal na mboolem takaalif muy yi la yàlla teg ci wàllu jaamu yàlla lépp amaana la bëgg nga mbooleem itam sa jëflante yi nekk sa digganteeg sa moroom yi doomu adama lépp amaana la muy kóolute la boo gisee mu diis ba borom bi ne asamaan ak suuf ak montagne yi sax ñoom dañ ne bu ñu leen ko gàll ndax dafa diis inna aradna al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibal fa abayna an yaxmilnaha wa ashfaqna minha waaye wa xamalaha al insan doomu aadamaa ko gàddu kon nag ku ko gàddu nag war nga koo sàmm moo tax mu ne wallazina hum li amaanaatihim wa ahdihim seen kóllëre yooyu ak seen jigéen yi ñu digge ne danga ko taxawee mu xam liggéey bu ñu lay liggéey loola wala sax ab sëy la kenn ku ci nekk am na loo diggee sa morom ndax bu dee jigéen ji digge na ne dana matal kem kattanam àqi sëy góor gi ne moom itam dana matal kem kattanam àqi boroom kër ci soxnaam kon loolu accord la bu dox seen diggante kenn ku ne war na koo sàmm lépp lu dox diggante nit ak moroom ma rek ba ci jiit nag mooy bi nga séq ak sa borom ci wax gi nga wax ne nangu nga moom rek mooy yàlla tey itam da ko jàmm kon kooku itam melokaan la ci melokaan yi ku gëm yàlla muy sàmm sa engagement yi nga jël ak lépp loo xam ne nit ñi la doyaloo ba dénk la ko ci ab liggéey wala ab secret bu ñu la dénk wala lu mu mën a doon daal loo xam ne yaa ca wuutu ñeneen ñi yaa tee ñu jox ko keneen ñu doy loolu ko ne diwa féete woon loolu loolu war nga caa sàmm sa digganteek sa borom ci matal ko sa kem kàttan bu fekkee ku gëm yàlla la ndax ñaareelu boobu mooy ñaareelu mën a yore ab liggéey compétence yor liggéey al amaana boobu mooy ñaare te mooy bi ci ëpp solo borom bi dafa wax ne ku ñuy embauché wala ñu koy fal ci dara mais la tey ENAM gi ñuy former administrateur civil yi nga xam ne ñooy a yore leenu réew mi ñaari tànk yi nga xam ne mooy tax nit mën a gouverner mën a jiite mbir moo xam tàmbale ko ca président bu ba ca ministre yi gouverneur yi préfet yi lépp la waay yor formation boobu ñu lay former ci wàllu administration ba nga xam nooy doxale kayit yi ak document yi dafa des beneen nag ndax borom bi daf ne inna xayra man istajarta alxawiyu al amin alxawiyu al amin alxawiyu mooy ku dëgër ki nga xam ne métier mi mën na ko fonction bi moom jàng na ko ba mën na ko moom waaye nag mu teg ci rek al amin nekk ku wóor nekk ku wóor formé na ci métier mi ba nga mën ko moom mën nañ la koo jàngal ca école yañ koy jàngalee ba nga man ko waaye wóor gi nag moom diine rek a koy jàngale moo tax su fekkoon ne boo boobu am na section boo xam ne ay borom yi xam-xam dañ fay ñëw di joxe cours borom xam-xami lislaam bala ñoo génn ñoom administrateur yooyu noonee ñuy jànge wàllu administration ñu koy jëlaale itam ay cours ci lislaam ba ñu xamal leen danger bi nekk ci wàllu atte wàllu alal ne ci sa loxo nga war koo bokk koo nit ñi war koo séddale ñu xam la ca ne waxuma sax ci àllaaxira waaye ci àdduna rek sax liñ la mën a jural ci yàqute ci àdduna lay tàmbalee ndax borom bi day wax ne lahum fi dunya xisyun wala hum fil axirati azabun asim danaa leen teg gàcce fii bari na ñoo xam ne gàcce leen mujj ci seen fonction yi ñu leen joxoon kaso lañ mujje wala ñu mujj torox mujj tuñ dara ci kanamu nit ñi te ay kilifa lañ woon yu ñu fonkoon waaye ñàkk gu ñu ñàkk a jubal moo dem ba wàcce leen ba ñàkkal leen solo lool te rek alaaxira ñëwagul lahum fi dunya xisyu loolu suñ leen ko doon jàngal loolu kon bu boobaa bu ñu ko boolee compétence wu ba ñu am ca la ñu jàng ca wàllu xam document ya dossier yi ñaar yooyu bu ñu ko boole rek yëf yi dana mën a jóg waaye nag bu ñu doxee benn tànk bi sunna bi ëpp solo ñu bàyyi bi te bii nag amul dara la ko mën a jàngale lu muy diine al amaana moom diine rek moo ko mën a jàngale. moo tax kon borom bi boole ko ci melokaanu ku gëm yàlla borom bi ne wallazina hum ala salawatihim yuhafisuun gis nga aay bi mu koy wax ci suratul mu'minuun mi ngi ko tàmbalee ci julli tëje ko ci julli ndax julli mooy li lay booleeg sa borom ndax yeneen jaamu yàlla yi ci def yëpp boo koy def tebul téewul ba tey nga mën di def yeneen boole ci xam nga mën ngaa woor mais téewul yaa ngi jaayee ko jënd ko waxtaan ak lépp te da ngaa woor booy aj makka itam noonu yaa ngi ci ak aj gi mais yaa ngi jaayee yaa ngi waxtaan ak def sa yeneen ni soxla mais julli rek ci ngay coupé moom ci ngay coupé bi coupé nit ñëpp moom yàlla léegi waaw julli mooy jaamu yàlla boo ci nekkee moom coupé nga amatoo droit déglu amatoo droit xool doo xool fenn lu may fi ngay si bëgg a sujjóot dong ngay xool sañoo dox sañoo tàllalee loxo sañoo xalaat foofu rek nga coupé complètement moo tax mu gën a màgg ci jaamu yàlla yi ndax mooy li nga xam ne moo lay booleeg sa borom tabaraka wa taala moo tax borom bi moom la ko tijjee xaasiun fii la mu ne wallazina hum ala salawatihim yuxaafisuun ñi nga xam ne julli gi dañ koy sàmm xaafisu ala salawaat la borom bi wax niiw rek julli naa waaye da ngay sàmm julli ca la mu laaj ci waajtaay balaa jot nga waajal ko ni nga ko war a waajal waajal itam foo ko mën a defe ji ci mbooloo ca jàkka ja waajal jàkka ji bul bàyyi rek bañ na noddu nga ne bu ma demee naa fekk ñu julli déedéet boo ko waajaloon ndax ni ngay waajale tey booy bëgg a tukki bu buñ la joxee rendez-vous woo convoqué la aéroport da ngay dem da leer ne moom heure bi ñu la moom avion bi demul heure boobu waaye pour bañ koo tardé dana tax nga dem fa 2 heures de temps ko fa am pour mu doog a nga bañ a bi raw la nag noonu nga war a bañ itam nu ko raw sax julli gi raw loolu mooy sàmmanteeg julli ndax borom bi tabaaraka wa taala dafa digle ñu koy defee ci mbooloo yaa ayyuha allazina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul xayra la'allakum tuflihun irka'u rukkoo leen daa am ñoo koy defal warka'u ma arraki'in loolu sax sa wax an dem leen rukkoo ànd ak ñay rukkoo ko néew ñu nga rukkoo rek nga julli rek déedéet àndal ak ñay julli lañ daw warka'u ma arraki'in loolu tax ñuy sonn ci di tabax yi jàkk fekkoon nañuy tabax jàkk yi ba pare te ku ne mën nga jullee sa kër daanaka du ko jàpp dëgg la boo jullee sa kër dina wér rawatina boo amee ngant waaye nag lu bari manqué na la nga waroon a def manquel nga ca lu bari mataloo ko sàmmante gi ñu waxoon ci sàmmanteeg julli defoo ko te mooy melokaanu juróom-benneel boobu wala si ñoom ala salawaatihim yu xaafisu sàmmanteeg farata yi ci di ko matal boo ci xasee ne bul yàkkamti jël jëlal sa temps ba mu mat bul yàkkamti bu def sa xel ci leneen ne ci julli gi te yàkkamtee dem ci leneen mais soo ci xasee ne joxal sa temps bépp julli gi rukkoo ba nga xam ne ku ne seen xam ne rukkoo mooy tuma nii boobu ñuy wax sujjóot ba ku la seet xam ne sujjóot nga taxaw njàng ma bul ko yàkkamti bul yàkkamti dara ndax temps boobu mooy temps bi gën a seer temps boobu mooy temps bi gën a seer ci sa dund boo ci jógee itam ci bu ko yées nga jëm kon nag doo ne ci temps bi gën a foor yàkkamti ciy jógee dem ci beneen bu ko yées kon bopp saar woowu di suratul mu'minuun juróom-ñaari melo yooyu wala juróom-benn melo yooyu lekk suñu borom tabaaraka wa taala melal ñi yàlla bon te mu gën a mu ne ulaa'ika humul waarisuuna allaziina al firdaws hum fiha xaaliduun nee na ñii nag ñooy doon firdaws bu ëllëg melokaanu juróom-ñaareel bi ci suratul anfaal mu ne innamal mu'minuuna allaziina idaa zukira allaahu wajilat na ñi yàlla dëgg mooy ñi nga xam ne. bu ñu tuddee yàlla ñu tiit ñu ragal ragal googu nag suñu boroom wax na ko ca suratul mu'minuun bii tey ne wallazina yu'tuuna maa aataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raaji'uun ba mu melalee ñi nga xam ne ñoo waraw ku dul ñoom daf ne mooy ñi nga xam ne dañuy def lañuy def ci lu baax ba noppi jàq Aïcha radiyallahu anha laaj yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waaw xanaa mooy waaju sàcc wala waaju njaaloo wala waaju naan sàngara ba noppi ragal ñu mbugal ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko laa yabnata sadiq huwa rajulu yasuum wa yusalli wa yatasaddaq wa yaxaafu an laa yuqbala minhu waaw ne ko déedéet bu koy sàcce ka njaaloo de waaye mooy ki nga xam ne mi ngi woor mi ngi julli mi ngi sarxe waaye muy ragal ñu bañ koo nangu ndax nangu dañ ko mbir kooku mooy tiit gi muy tiit kooku itam ci melokaanu gëm yàlla la bokk melokaanu juróom-ñetteel bi mu ne nag wa iza tuliyat alayhim ayatuhu zaadathum imana loolu itam nit ki ne ci natt boppam soo déggee alquran lu muy jeexital ci yow te alquran day borom bi misaal la ne bu ma ko wàcce woon ci montagne te moo leen ëpp doole foofu law anzalna hadha alqur'ana ala jabal la ra'aytahu xaasi'an mutasaddi'an min xasiyati llah wa tilka al amthaalu nadribuha linnaas la'allahum yatafakkarun borom bi ne montagne de su fekkoon ne ci ñoom laa wàcce alquran leen gis ñuy fett di toj ngir ragal yàlla yow doomu aadama bi nga xam ne montagne yooyu ñoo la ëpp doole gën laa dëgër kon bu alquran wàccee ci yow war naa am lu mu def ci yow moo mu ne alam ya'ni lillazina amanu an taxsha qulubuhum li zikrillah wa ma nazala min alxaq mu ndax nag jotul ci ñi gëm yàlla seen xol yi di toroxlu di mokk di tiit ci bu ñu tuddee tuur yàlla ak li mu wàcce ci dëgg mooy alquran bu leen ko déggee moo mu ne suñu leen jàngalee alquran ñu dégg mu dolli leen ngëm suñu ko dee jàngit mu dolli leen ngëm lool nag la koy waral mooy di ko settantal di jéem a xam maanaa ma la muy wax loolu mooy tax nga man caa dolliku sa ngëm yàlla ndax benn ay dige yu muy dige la ci lu baax nga gën a xemmem loola gën ko wut wala ay tëkku yu muy tëkku la nga ragal tëkku yooyu gën ko daw alxuraan loolu rek nga ci jël melo juróom-ñeenteel ba mu ne nag wa ala rabbihim yatawakkaluun tawakkul ala allah wa ala allahi fa tawakkalu in kuntum muminin tawakkul muy wakiilu ci yàlla bàyyee yàlla lépp bàyyee yàlla lépp sabab yi ngay def sax da koy def ngir dig digal jim la ko digal waaye tekkiwul nga gëm ne mooy tax am liggéey moom moo la ko digal rek waaye nag nga gëm ne moom lépp moo koy joxe ndax sabab bi moo la ca jaarloo moo la may kattanu it nga mën koo def kon tawakkul boobu muy jooyal sa mbir yépp ci yàlla lam la ca digal rek ca nga yem doo ci jéem leneen kooku melokaan la bu rëy ci gëm yàlla te li koy waral mooy yaqiin doyloo goo ko doyloo xam nga li ngay yebal nit ci mbir mu la koy toppatoon nga daal di jaaxaan waxatoo ko kenn dematoo fenn da am kóolute ci moom moo tax da am am kóolute am yaakaar ci ne loolu dana ko toppatoo waaye kon nag nooy wax ne mbir mi yàlla nga ci yaakaar bu noppi waaye nag yaa ngay dem ne da ngay jibarlu ji ñu defal la nii defal la laa ngir sa mbir mi mën a ànd ba noppi ne yàlla nga ci yaakaar kon boo ko ci yaakaaree doyloo ko ci doyloo ko ci waaw da ngay dégg ñu naan yàlla yàlla bay sa tool waaw yàlla yàlla bay sa tool ga kooku sabab la génnul yàlla yàllaa la ko digal yàllaa la bay ga waaye bay ga taxut a am waaw na ko sax afara aytum ma taxrusuun a antum tasraunahu am nahnu zariun xanaa gisu leen li ngeen di bay yéen ko bay wala maa ko bay law nashaau la jaalnaahu xutaaman fa daltum inna la muxramuun bal nahnu mahrumun nee bu ma neexee nga baye bay ba sa tool set wecc ma def lépp mbokk boobu rek lay gerte boo guddi genn benn doom lu nekk ca suuf waaw toujours nga gis ko gerte gi law lool màgg lool waaye benn doom du ca ne wala doom bu ca ne dara benn kemb du nekk ca biir kon sa bari engrais gaag sa mën a bay gaag sa setal ga taxul mu ñor loolu di sa sabab bu la yàlla digaloon rek la waaye taxulaa loola may la kon wakkilu googu itam pas-pas la bu dëgër ci melokaanu ku gëm yàlla borom bi tudde ko ci alxuraan fu bari wa alallaahi falyatawakkalil muminuun wa alallaahi fatawakkalu in kuntum muminin gis nga sart la ci bu fekkee gëm ngeen yàlla wakiirlu leen ci yàlla mooy bàyyi leen si mbir yàlla te def lam leen digal ci mbir ma rek la nga ca man nga def bir mbir mooy wut mu ne la la ca yàlla digal gis nga ca suuf daf ne famsu fi manakibiha wa kulu min risqi wërsëg bi def naa ko fi waaye fokk na ngeen jóg jëli ko ngeen dox ci kaw suuf sabab lu ji kenn ku ne fa jëm moo xam borom tool ba moo xam borom atelier ba moo xam kay dem ci géej ga la moo xam borom bureau ba la loolu lépp sabab lu la rek ndox ci kaw suuf la waaye nag borom bi mooy joxe wa kulu min rizqi wa ilayhi nushur fukkeelu melokaan bi mu ne nag wa mimma razaqnahum yunfiqun dañuy joxe ci li ma leen wërsëgal nga yunfiquun foo fekk yu'minuun lu soriwul dara nga gis yunfiquun muy joxe alal joxe alal day dëgëral ngëm ndax alal fi ngëm yàllay nekk fi lay nekk muy xol wa tuhibbuuna al maala xubban jamma da ngeen di bëgg alal mbëggeel bu rëy rëy rëy mu ne lan tanaalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuun du ngeen mën a am mbaax li feeg fekku leen lu ngeen bëgg lool ci seen biir xol ba foo tollu yaa ngi xalaat balaa sa xelaat dal sax nga vérifier ba xam mbaa wàññikuwul mbaa kenn jëlu ko mbaa réerut foo tollu yaa ngi koy doo am mën a amul mbaax li feeg nga joxe loola wala nga joxe ca lu bari su ko defee nag ngëm yàlla mën a jël place moo tax mu nekkoon dañuy dund leen ci li ma leen jox tàmbalee ko ca dépense yu war yi lu mel ne asaka kooku moom dépense obligatoire la ak dundal bi nga war a dundal sa njaboot sa soxna say doom yi ma sóoragut say jege ñaale mbooleem ñu nekk ci sa kilifteef te ab dund war la ci ñoom kooku dépense bi ngay dépensé ci ñoom ci melokaani ngëm yàlla la bokk ak nag dépense yi nga xam ne yu ñu sopp la muy mbooleem bunt yu baax yi mbooleem luy jur tuyaaba nga di joxe sa alal kooku ci ngëm yàlla la bokk ab julit du nay nday bëggee moom ngëm yàlla mënuñoo daje cib xol loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bëggee bu ëpp ngëm yàlla mënuñoo daje ci xol mooy li wolof yi wax naan bëggee du mat ngor mat ngor googu mooy ngëm yàlla rek bëggee gu ëpp bu ko nit ki defee ngoram duutu mën a tee mat fukki yëpp bi ak benn mooy nag tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wéetal yonente bi sallallahu ci ak roy ak topp topp nga koy topp cee boole leneen borom moo ya yaa ayyuha allazina amanu atiiu wa atiiu rasul waxam ne yaa ayyuha allazina amanu laa tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasuli yéen ñi gëm jiitu ci kanamu yàlla ak yonentam mel mbir mu mën a doon bala ngeen caa def wala ngeen di ca wax na ngeen xam lu ca yàlla digle nu ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale kon topp yonente bi sallallahu alayhi wasallam tënku ci sunnaam bañ a andi ci diine loo xam ne moom def ko woon ak luñ la ko rafetlu rafetlu bari dañoo xam ne moom lu baax moom lu baax du doy lu baax itam lépp loo baax lu ci sam xel rek aajatul nga cay wut dalil bari loolu la ñuy jàpp soo waxee ñu kenn tëralu kenn tërewuñu ko fu ñu ko tere mais fu ñu ko digle lañu war a seet fu ñu ko digle diine moom buñ ne luñ ma terewul rek diine la déedéet aada mooy luñ la terewul moom ayut mais diine nag di la digalul bokku ci ci diine dañ naa la da ngay taxaw bañ na la doxal bul sotti benn jéego ba bañ la wax bu dee ci aada nag da ngay dox bañ na la taxawal waaw ñaar yooyu bokkul aada da ngay dox bañ na la taxawal lii aada la suñu maam daanu ko rek ah, ba bañ lay wax ne ah lii kat maam yi daana ko def waaye diine tere na ko nga bàyyi waaw am naa diine nag moom doone rek damay dox ba bañ la déedéet da ngay taxaw moom bañ na la doxal moom diine ndigal lañ ciy laaj waaye laaj ñu ci tere ñu bari nag bu ñu fentee ay mbir di ko def soo leen waxee ñu ne fuñ ko tere fuñ ko tere mais ñu ko digle fuñ ko digle lañ war a njëkk a laaj ah bañ ko digle wu rek tere nañ ko bañ ko diglewul rek tere nañ ko ndax comme lañ ko digle lépp digle nañ ko ba mu mat ñu ne al yawma akmaltu lakum diinakum mboolem lu ñuy digle digle nañ ko kon lu ñu diglewul dañ ko tere waaw lu ñu diglewul kon safaan ba booy dañ ko tere kon diine moom pour nga bañ cee fent dara loo amul ndigal rek bu ko def ñu bari na ñuy sukkandikoo mooy dañ naan lu ñu amulu tere te sax am nañ ceeg tere tere ga mooy li yonente bi sallallahu wax ne ku andi ci sunu mbir mi loo xam ne diglewuñ digaluñ la ko loola dañ la koy delloo bu booba laysa alayhi amruna loo xam ne amoo ci ndigal gis nga ko foog nga am ci ndigal foofu wa radd waaw foofu wa radd dañ la koy delloo fukkeel ba ñaar mooy nag muwaalaatul mu'minin wa muaadaatul kafirin adduna bi ñaari kuréel rek moo fi def xisbullah ak xisbu shaytaan borom bi tudd na ko xisbullah ak xisbu seytaan ñi féetee suñu borom tabaraka wa taala nekk ay awliyaam nangul ko ak nag ñi nga xam ne moom seytaane la ñu féetal yow mi gëm yàlla nag ñi féetee yàlla ñoo ñoo war a doon say partenaire ñoo war a doon say allié doonte say intérêt adduna sax ci ñee la ëppee mën naa am ña féetee ak bu dee ci njëriñu àdduna yu teew dangay ngay jàpp ne ñoo la ko ëppal mën naa am ci mbokk ñoo la gën a jege mën naa am ci wàllu am ami àdduna mën naa am ci ñoo ngay liggéey ñoo la mën a wutal liggéey wala mën a ñoo la dim wala dimbali ci ay say aajo yooyu soxla ñee gëm yàlla moom mën naa am sori nañ ci mbokk wala bokku leenu xeet wala sax amuñu ay moyens yuñ la mën a jàppale loola lépp teew di war a sacrifier yooya ànd ak féete gi ñu gëm yàlla bañ xam ne foofa nga féete bu wér wal muminuuna wal muminaat baaduhum awliyaau baad la loolu itam sart la bu am solo ci ngëm yàlla muy alwala wal bara koy féeteel ak koy baax waaw suñu borom yaa ayyuha allazina amanu laa tattaxisu abaakum wa ixwanakum awliyaa in istahabbu lkufra ala aliman wa man yatawallahum minkum fa ulaika humu zalimun wax ju leer la yéen ñi gëm yàlla bu leen jël seen bàyyi mbokk moom lu mu la jege jege say baay bi la jur wa ixwaanakum ak seen mbokk yi leen ngeen bokkal bu leen def awliyaa ay péete ay alliés in istahabbul kufra alal iman su fekkee seen mbokk yooyu kéefar moo leen gënal ngëm yàlla kon bu leen féete teeg dem nee na kat su ngeen féeteeg ñoom kat kon ay tooñkat ngeen wa man yatawallahum minkum fa ulaika hum az-zalimun nga kon bokk na ci sarti gëm yàlla kon ñi gëm yàlla ñoo ñooy say xarit ñooñu ngay féeteel ñooñu ngay faral li feeg ñi ngi ci lu neex yàlla lu ñu mën a séq ak ak ñee lu ñu la jege-jege ci mbokk ak lu ñu la amal amal njariñ yu teew du tey fee ngay féete fukkeel beeg ñett mooy nag di delloo bépp juyoo bépp wuute bu am sa digganteeg sa moroomum doomu aadama sa moroomum jullit ngeen nañ ko delloo ci alquran ak sunna bu leen déglu kenn bu kenn naan sama baay lay déglu wala sama sëriñ lay déglu wala sama tariqa lay déglu nañ ko delloo ci alquran delloo ko ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wasallam kañ koy seetloo bu mu ci mën naa doon koo xam ne moom yoo dem xamul sax yéen lu ngeen lu ngeen lu ngeen lu ngeen jote laaj koo xam ne am na xam-xam bi te mën naa am sax moom xamul yéen li ngeen di xëccoo lu mu ngeen ne ko masala sa gab lu ci alquran wax waaw xam ne moom mënu ne fenn la ci far maanaam xamu leen sax yéen ñi ko koy laaj mu leeral leen lu ci sunna wax mu leeral leen su ko defee nag yéen ñaar ngeen jëlaat mbir ma ngeen ne kon kon fii la nekk gi féete kenn ku ne da nga ko toog fa ba doonte wuute nag yow fa nga féete woon ak position ba nga doon défendre lii mu wax wuute nag moom nga nangoo dellu ca lee nga xam ne muy dëgg te ki ko doon wax amu ci benn intérêt ku koy faral ci yéen amu ko ci. benn ak ragal am yegg na ca bu leen xamee wala sax xamu leen moom te léegi jokkoog boroom xam-xam yoo xam ne xamuñu la xamuñu sax foode ne yomb na lool waaw. mën ngaa jokkoog ñoom wax leen nangam ak nangam ak nangam daal lañ doon laaj yéen daal ñëpp ngeen bokk di déglu nga wax ñu ci li nga ci xam lu ci alxuraan bu noppee